xibaar yi Serigne Cheikh Ndiaye Njare moo leen koy may Serigne Cheikh Ndiaye Njare nag sët la ci Serigne Daaru Assane Ndiaye nekkoon góoru yàlla gu yàlla baaxal moom nag Serigne Lasraar bu yàlla may la nee na ma dina yëngu ci wàllu seet ak seet bu mu mën di doon foo mënti nekk ci àdduna boo ko woowee dina la seetal wax la ci sa dund loo mosul gis wala loo mosul dégg waaye tamit nee na ma dina def noob wàllu noob moom yàlla may na ko ci vingt-quatre heures maanaam benn bis képp mu jox la résultat yu leer waaye nee na am na cangatug njara canga tàggatuk njara googee nee na ku mu jëflanteeg ba noppi rek di nga ci am lu kawe sa njortu waaye nee na noppeegul de am na ndombo goo xam ne ndombo njare la ñu koy wax ndombo googu nag nee na képp ku ko am dina la aar ba noppi ubbi say xéewal nee na yàlla tamit may na ko ci wàllu ñaan nee na wàllu ñaan dina ci yëngu rawatina wàllu kayit képp koo xamante ni am nga ci ay jafe-jafe dina la ñaanal ba noppi samp la nee na tamit am na cangatug rab goo xam ne bis bu leen yàlla boolee vingt-quatre heures maanaam benn bis képp di nga gis ay coppite ci sa bopp waaye butéel yi ngeen di gis moom la tuddee gaynde gu góor gi bii sunu mbokk góor tan la ko jagleel nee na képp ku ko jëfandikoo di nga daw ñëw dolliwaat waaye nee na feebar yi yëpp yàlla may na ko ci muy ndoxum siti hémorroïde diabète ak yeneen feebar yi nga xam ne sonnal nañu askan wi képp ku ko bëgg a gis nag ma nga ca cité Aline saw waaye képp ku bëgg a jokkoo ak moom it numéro yaa ngi noonu ngeen di gis muy 78 475 27 82 ma baamtu ko 78 475 27 82 loolu la ñu mën a jotee Serigne Cheikh Ndiaye Njare nekk sëriñu Lasrar bu yàlla baaxal. ñu door xibaar yi dooree ko ci doomu Sénégal bii di Habibou Diallo club ba mu nekk di Strasbourg tey Nantes lañ doon jàkkaarloo dóor ko ñaari bal ci dara bit ba njëkk a am ca match boobee nag doomu Sénégal bii di Habibou Diallo moo ko dugal waaye yemu ca dafa amal passe décisive ca match boobee ki mu jox mu dugal it mbokkam la di doomu senegal di farandoom ca Strasbourg tudd Mouhamadou Habibou jara moom moo dugal ñaareelu bit bi jamono ji рынок am na dix-huit buts ca Ligue 1 bu France di Habibou Diallo bokk na tamit ci ñi dàq dugal ci Ligue 1 boobee maanaam meilleur buteur yi ndax moo nekk ca juróom benneelu place ba sixième meilleur buteur ci Ligue 1 bu France moo di Habibou Diallo kon ñaanal leen ko mu wéyal ca jaloore joojee ndax saison bi ñu nekk kat mi ngi amal saison bu baax ak clubam boobee di Strasbourg ñu jugee ci Habibou Diallo ak i jaloorem jël beneen doomu Sénégal di Keita balde moom it tey wane na boppam club ba mu nekk di Spartak Moscou seen it la ñu fekki woon Sénit nag moo am ndam dóor ko ñetti bal ci ñaar Keita Baldé nag dugal na ab bit ca match boobee bit boobee nag mooy ñetteelu bitam ca championnat bu Russie tey jii nag ñu ngi tolloon ci vingt sixième journée maanaam ñaar fukk ak juróom benneelu bëccëg naam këlëbam dafa daanu waaye doomu Sénégal bi doxal na ca match boobee dugal ab bit muy Keita Baldé ñu jugee ci Keita Baldé jël beneen doomu Sénégal di Abdou Lahad Diallo moom nag ma ngay football ca RB Leipzig waaye Paris moo ko moom able ko foofee bu ñu sukkandikoo ci RMC bu saison bi jeexee dina jugee ca almaañ delluwaat ca France ca këlëbam di Paris Paris nag ba mu ko ablee foofee àndoon na ak option d'achat waaye nekkuloon obligatoire maanaam nekkuloon force waa RB Leipzig li ñu bëggoon moo di su fekkee doxal na fa ñu jënd ko waaye moom Abdou Lahad Diallo nag doxalu ca club boobee moo tax day dellu siwaat waaye RMC nee na yemul ci moom képp nag ni moom la waa pari able woon muy dellu si am na yeneen jour yoo xam ne pari able woon na leen waaye bu saison bi jeexee dinañu delluwaat ca pari doomu Sénégal bii di Abdou Lahad Diallo nag bu ñëwee ca Paris mën naa bañ a lambu ndax club yu bëri noppi nañu ngir su fekkee dellu na ca Paris ñu jéem a dem ca Paris jëlee ko fa muy Abdou Lahad Diallo Diallo ñu jugee ci Abdou Lahad Diallo jël doomu Nigeria bi di Victor Osimhen moom nag dugg na ci taarixu Serie A li ko waral moo di mooy doomu Afrique bi ëpp ay bit ci Serie A ba ba mu soso ak tey jii record boobu ki ko yoroon moo di George Weah waaye doomu Nigeria bi romb na ko tey jii club ba mu nekk di Napoli Fiorentina lañ doon dalal dur ko benn bal ci dara bit ba am ca match ba nag Victor Osimhen moo ko dugal loolu tax na am na quarante sept but ci histoire Serie A loolu nag benn doomu Afrique mosu koo def kon moom Victor Osimhen dugg na ci taarixu Série A. ñu jugee ci Victor Osimhen ak i reem jël doomu France bi di Hugo Ekitike moom nag ma ngay football ca Paris gone gi daaw ca reem sa la nekkoon di doxal Paris jënd ko gone gi ci boppam nag saison bi ñu nekk doxalut ak waa Paris waaye lim bëgg moo di des ca Paris googee bis dina ñëw mu adopté wu doxal. waaye njiitu club boobee di Paris ñoom gisuñu loolu rawatina seen directeur sportif bi di Luis Campos Luis Campos li mu bëgg moo di bi jeexee ñu jaay Ekitike mu jugee ci seenub club li ko waral moo di doxalut te su fa toogee mën naa tardeel waa club bi loolu moo tax li ñu bëgg moo di bu saison bi jeexee ñu jaay ko xaalis bi ñu am ci moom ñu def ko ci yeneen gone ñu ñëw jàppale leen waaye gone gi ci boppam moom toog ca Paris moo ko gënal xibaar boobu l'équipe moo ko xamle ñu jugee ci Hugo Ekitike ak ci bëgg-bëggam dem ca waa Bayern de Munich ñoom nag dañoo bëgg doomu France bi di Ousmane Dembélé rawatina ki di tàggat di Thomas Tuchel ndax xam na doomu France bi bu baax yoroon na ko ca Borussia Dortmund li Thomas Tuchel bëgg moo di njiitu club boobee fexe ba indil ko osman Dembélé nga xam ne bu fa ñancoo Sadio Mané jugee Ousmane Dembélé mën ko wuutu foofee doxal waaye mundoo nag mi ngi ñaax waa Barcelone ndax clause bi nga xam ne moo ko bàyyi ca club boobee mi ngi toll ci cinquante millions d'euros kon su fekkee Ousmane Dembélé bëgg na bay yéenu de minute loolee lu mën a nekk la kon Barcelone li leen war moo di jëmbat fulla yokk contrat am laata Thomas Tuchel di ko jël ci ñoom xibaar boobu Mundo Deportivo moo ko xamle. ñu jugee ci waa bay yéenu de minute ak seeni bëgg-bëgg dem ca waar Real de Madrid ñoom nag seen milieu de terrain bii di Dani Ceballos dafa blessé démb bi ñu jàkkaarloo ak Osasuna ci échauffement yi ci la amee ab gaañu gaañu bu ndaw blessure boobee nag tax na du mën a bokk ci match aller bi war a dox ci diggante Real de Madrid ak Manchester City soxal demi-finale Ligue des Champions Ceballos du mën a bokk ca match boobee xibaar boobu Marca yéenekaay moo ko xamle. ñu jugee ci Ceballos ak xibaaram bu naqari dem ca waa Burnley ñoom nag ki leen di tàggat di Vincent Kompany nekk doomu Belgique yokk nañu contrat yeneen juróomi at yoo xam ne mooy toog ca club boobee di leen tàggat Vincent Kompany nag ca Manchester City la nekkoon def fa ay jaloore léegi nag coach la jamono ji mooy tàggat Burnley te Burnley googee sax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 lasraar bu yàlla may la nee na ma dina yëngu ci wàllu seet ak seet bu mu mën di doon foo mënti nekk ci àdduna boo ko woowee dina la seetal wax la ci sa dund loo mosul gis wala loo mosul dégg waaye tamit nee na ma dina def noob wàllu noob moom yàlla may na ko ci vingt-quatre heures maanaam benn bis képp mu jox la résultat yu leer waaye nee na am na cangatug njara cangatug njara googee nee na ku mu jëflanteeg ba noppi rek di nga ci am lu kawe sa njortu waaye nee noppeegul am na ndombo goo xam ne ndombo njare la ñu koy wax ndombo googu nag nee na képp ku ko am dina la aar ba noppi ubbi say xéewal nee na yàlla tamit may na ko ci wàllu ñaan nee na wàllu ñaan dina ci yëngu rawatina wàllu kayit képp koo xamante ni am nga ci ay jafe-jafe dina la ñaanal ba noppi samp la nee na tamit am na cangatug rab goo xam ne bis bu leen yàlla boolee vingt-quatre heures maanaam benn bis képp di nga gis ay coppite ci sa bopp waaye butéel yi ngeen di gis moom la tuddee gaynde gu góor gi bii nag sunu mbokk góor ñi néew kattan la ko jagleel nee na képp ku ko jëfandikoo di nga daw ñëw dolliwaat waaye nee na feebar yi yëpp yàlla may na ko ci muy ndoxum siti hémorroïde diabète ak yeneen feebar yi nga xam ne sonnal nañu askan wi képp ku ko bëgg a gis nag ma nga ca cité Aline Sow waaye képp ku bëgg a jokkoo ak moom it numéro yaa ngi noonu ngeen di gis muy 78 475 27 82 ma baamtu ko 78 475 27 82 loolu la ñu mën a jotee Serigne Cheikh Ndiaye Njare nekk Serigne Lasrar bu yàlla baaxal.